téeméeri euh, bés yi njëkk ci nguuru euh, nguuru président Diomaye gisuma ci lu ma lu ma lu ma jaaxal ba jaaxal ma gisuma aussi lu ma lu ma bégloo ba mu ëpp ndax dama dañu xam ci li ñu nekk dañu xam ci li ñu nekk lu metti la parce que ñoom dañuy ñëw di découvrir nguur di di gis état di ko jàng war def ay changement yu bëri ci nit ñi ci direction yi war def ay changement yu bëri ci doxalin bi fekk am lu ñu fi fekk lomte ne war nañ ko càmbar ba pare doo doxal seen liggéey dafa laaj temps bu bëri dafa laaj temps bu bëri et je pense que ku jaar état xam état nekkoon ci administration xam circuit administration xam nga dañu soxla temps bu bëri moo tax dañ leen war a wàññi lee conflits wàññi la politique pour leur permettre de s'installer et bu ñu taxawee xëy na fii léegi at laa bu boobaa daañu mën daañu mën a avancer.